ñaar Korent danoo tàmbalee tëgguwaat nag mbaadu danoo soxla ni ñenn ñi ay dénkaane yu ñu nuy gërëme te ñuy bataaxal yu jóge ci yéen walla yu jëm ci yéen déedéet yéenay sunu bataaxal te ci sunu xol lañu ko bind di bataaxal bu nit ñépp mën a xam te jàng ko ndaxte leer na ni bataaxal bu jóge ci kirist ngeen bu mu jaarale ci nun bindee su ko daa waaye ci xelum yàlla miy dund lees ko binde te du ci àlluwaay doj lanu ko rëdd waaye ci xolu doom aadama googu kóolute lanu am fa kanam yàlla ndax kirist du càggeen nag ne àttan nanu dara ci sunu man-man ba nu yaakaar dara ci sunu bopp waaye sunu kàttan ci yàlla lay jóge moo nu jox kàttan nu nekk ndaw yuy xamle kóllëre gu bees gi te kóllëre googu ajuwul ci ay sarti diine waaye mi ngi aju ci jëfu xelum yàlla ndaxte sarti kese day jëme ci dee waaye xelum yàlla dafay joxe dund ba ñu bindee arefi sàrt yi ci àlluwaay doj leeraayu ndamu yàlla nekk fa xarkanamu musaa di leer ba bànni israyil duñu ko mën a xool fekk leer ga di wéy ndegam sàrt yoon yooyuy jëme ci dee ñoo ànd ak ndam rawatina nag ne jëfu xelum yàlla dina gën a ànd ak ndam su fekkee ne tërëliin wi teg nit tooñ àndoon na ak ndam rawatina ci tërëliin wi àtte nit jub ndaxte ndam li amoon keroog suux na ci ndam li ko raw léegi te ndegam liy wéy dafa amoon ndam asemaak li fi sax kon nag gannaaw wekku nanu ci yaakaar ju mel noonu dañuy waare ak kóolute gu mag duñu def ni musaa mi daan muur xarkanamam ngir bànni israel bañ a gis jeexuk leer googu saxul waaye seen xel dafa daldi gumba ba tey jii sax bu ñuy jàng téereb kóllëre gu jëkk gi muuraay moomu dafay des deñul ndaxte ci kirist rekk la mën a deñe waaw ba tey jii sunuy jàng yoonu Musaa seen xool dafay muuru waaye saa su kenn wëlbatikoo ci borom bi muuraay gi daldi muriku fekk nag borom bi ñuy wax foofu moo di xelum yàlla te fu xelu borom bi nekk foofa yaatu gu mat am na fa te ñun ñépp nag dañuy leer xat ndamu borom bi ak xarkanam bu móoruwul bay soppeeku ci melokaanam ànd ak ndam luy yokk te sax ci dooley borom bi xelum yàlla